mais euh, euh, li nga wax lu am solo la sa question question am solo la parce que je pense que dafa am leadership national et leadership local loolu yëpp dafay am benn ancrage buy permettre yow mi nekk leadership local nga mën a doon le le porte-parole ou le porte-voix de nga xamante ne dañuy ànd ak yow parce que pour moi pour man politique ànd la du kii jiitee ñu topp ko déedéet ànd la nu xool fi ñu dëkk lan moo fay li nga xamante ne mën na koo ko sukkali mm. xam jàpp naa ne lu nit xam-xam sama zone mm-hmm. gënuma koo xam falaa juddoo falaa jare jaro falaa jànge et puis yaa ngi fay dem tout le temps ba ma fa gëj vendredi naa fa dellu ba ma fa gëjee matul un mois vendredi naa fa dellu et un mois waaw <laughs> bi ma fa bi ma fay dellu dinaa fa dellu vendredi également. ay responsable politique la ñuy ne mais ñu néew foofu de Ndakaaru fii la ñuy ne. li non man man bokkuma ci yooyu. ok j'ai fait deux séjours professionnels boo ma laajee ñëpp xam nañ ma fa man du ma fay géej fa laa dëkk alors euh, donc euh, loo xam-xam zone bi mënoo ma ko gën a xam. parce que mhm. fa laa dëkk jàngi naa fa liggéey naa fa aussi. Euh, j'ai servi là-bas jusqu'en 2014 j'étais le Euh, chef du service régional des impôts de Matam entre 2014 et 2017 boobu laa fa jógee ñu affecté ma ci impôt bi nekk Foire ensuite je suis allé au ministère de la la justice donc hmm. je suis resté fondamentalement ancré ci territoire boobu ma jàpp ne hmm. euh, ñun li war a nekk suñuy suñu suñu rôle hmm. en tant que citoyen ressortissant de de la zone mooy càmbar li nga xamante ne moo mën a suqali zone boobu ñu doon ñu porté ko ñu porté ko ci wàllu projet mhm. ñu porte ko ci wàllu financement pour les jeunes mhm. ñu porte ko ci wàllu revendication yoo xamante ne danañ ko mën a yeggee nguur gi ñu naan leen ñun jàpp nañ ne lii buñ ko defaree eh, zone bii wala sunu zone wala suñu secteur dina tax effectivement lañ ci yaakaar ci wàllu économie ci wàllu développement mu mun a mu mun a am parce que man je pense que le le le le on on comme disait l'autre on ne développe pas mais on sa développe le développement il ne s'agira pas que le que l'on réveille ñu ni waaw Sénégal naat na mm. non Sénégal balaa mu naat il faudrait que gox bu nekk wala sénégalais yi seen bopp ñu mën a sentir naataange googu mm-hmm. naataange gi mënut a jógee fii ak ñun ñi nga xamante ne ku ci nekk si ñun fa nga dëkk ak fa nga soxee ko. Mhm. nga man cee am gis-gis boo xamante ne effectivement dina mën a méngoo ak jamono dina mën a méngoo ak accompagnement yoo xamante ne dina dina dina permettre euh, effectivement mu indi développement. donc loolu am na solo